waaw chef d'abord dañ koy à l'image de tous les sénégalais dañ koy rafetlu euh, saluer ko leen ñaanal leen yàlla mu nekk réussir parce que amuñu droit bañ a réussir mm-hmm. parce que c'est inédit aussi lu tax mu inédit parce que ñi ko woote tey prison lañu jógee falu dañu jógee prison sénégalais yi fal leen ça c'est vrai donc c'est <laughs> li ngay waxee ume ume kaso euh, korite palais donc là c'est inédit gëm naa ni c'est pas un hasard mais euh, ñoom sax xam nañ bu baax question bi ñuy traité dañ ko dañ ko subir en fait. justement c'est la c'est la raison pour laquelle mm-hmm. ma naan amuñu droit bañ ko réussir. Mm-hmm. parce que en fait Sénégal amuñu problème de réflexion ñi ils ont tout tout ñi ils ont tout pensé ils ont tout mm-hmm. réfléchi. lépp a ngi xalaat lu assise xalaatul. mënuñu xalaat li CNRI yi xalaatul mm-hmm. li des rek c'est problème applicabilité rek moo des mm-hmm. loolu rek moo des suivi bi mm-hmm. te gëm nañu la rupture bi ñu nar a li sénégalais xaar si ñoom lépp lu nga xam ne mbébét nañ ko xalaat nañ ko parce que c'est des grands penseurs c'est des gens aguerris en la matière ñoo ko xalaat ñoo fi nekk li ñu xalaat ñu jàpp ko tënk ko ñu yóbbu ko assemblée gars wote ko parce que dama gëm ni tey Sénégal dañu war toll foo xam ne il faut qu'il y autour de certaines choses. ñëpp ci war a déggoo ñëpp ci war a même la posture des gens qui ne sont pas allés répondre à l'invitation man dama dama koy ñaawlu. autant mm-hmm. ni ko ñeneen defee woon démb. Mm-hmm. dama koy ñaawluwaat ni ko ñuy defee mal à l'aise bu ñu demoon. non non non demuñu ku ci mel ne Aïssata Tall ci mel ne Ismaïla Madior Fall. bu ñu fa toogoon wax. non non au contraire cest à que ben y des gens yoo xam ne aussi ñenn ñu ngi leen di critiquer pourquoi ñu fay nekk seen place nekku fa. Mhm. cest dire c'est la même chose. Mhm. tey maître Aïssata Tall Sall nga bëgg ko nga bañ ko. elle n'est pas n'importe qui dans le système judiciaire Ismaïla euh, Madior Fall. de ah, chair la mhm. ñëpp dañoo waroon gëm ni c'est le Sénégal qui au-dessus de tout. ñu ñëw toog waxtaan parce que fa ñu toll loolu la doon Mourtala doon wax une fois. suñu débat bu mujj fii. cest à justice sur l'énergie sur la sécurité opposition foog ñu fuyee ni mu ko waxee. non le mal est profond li mu ko wax yëpp moom vraiment. non j'espère que j'espère que ñu ngi ci. la mm-hmm. kooku sénégalais boo ko xamul dafa da ngay gént. dire que le mal est plus profond même que kii lu mu wax. parce que système bi fi ñu. les gens quoi. cest dire man tey tey ñu ngi révélé que ne am na ñoo xam ne dañ naan fayeeku ñaari yoon ci ci weer bi. mais li ma gën a cest dire que li moo feeñ rek euh, Mamadou cest les gens les gens connaissent les mots. xam nañu problème yi xam nañu jafe-jafe yi. Mm, mm, mm, c'est comme la justice tey su ñu waxee même Babacar Ndiaye bii kese soo ko tegee ci journée mun na la defar rapport pour poser jox la les solutions concrètes. moom it il a ah, goûté à euh, foofu lay waxee les solutions sont là. li des nañ ko appliquer Sénégal jëm kanam parce que kii wax na ko justice bi mooy mooy suñu kenn waay yàlla may nañu chance on a les meilleurs magistrats de de de l'Afrique. on a mhm. les meilleurs avocats de l'Afrique ku ci dem sur le plan international tu n'as mhm. que ce euh, environnement avec des structures avec des moyens qu'il faut ñu jox leen. assainissement la la jox leen cest dire que mhm. jox leen le mot à dire parce que finalité bi yëpp finalité bi man li ma jàpp ci assise finalité bi yëpp lenn la war a que réconcilier le justiciable à la justice. parce que sénégalais boo fëgg fii deux heures du matin am na si ñoo xam ne su ñu amee problème ni ñuy ragalee dem hôpital faju ji noonu la ñuy dem justice. parce que dañu ne du mujj fenn. c'est a du ko traité da ngay daw ba sonn après dans la mm. rue pour dire que fu may terminer mooy que Diomaye président Diomaye président premier ministre Ousmane ils n'ont pas droit à l'erreur mhm. et c'est un virage historique au regard de tout ce que Sénégalais ont consenti pour ñoom en termes de sacrifice en termes d'accompagnement en termes de moyens amuñu droit ne pas réussir cette affaire là. Mhm. et suñ ko defee ce sera une erreur historique ce sera parce que virage bi suñ ko pertee rek c'est. merci